yaraw ci mboolem lu yaay Alaaji Fallu saa soo leen bëgg xibaar yu wóor te gaaw bale ko wér gaaw leen gaaw abonné seen chaîne bii di Ndindy Actu waaw da ngay bës cloche bi def abonné lépp mat bu ngeen bëgg également ay publi reportage ñu couvrir leen également seen ay événement lu si mën a doon événement religieux politique société maanaam daal xew-xew jàpp leen Ndindy Actu mooy chaîne bi gën a gaaw waaye tamit gën a disponible ngir seeni xew-xew woote leen gaaw si service commercial bi di 77 693 90 46 wala 77 698 96 53. Cheikh كتاب فوق جميع الكتب ومثله بما مدانا يكتب من ظن أنه يماثل الرسول jëf mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi wéyal suñuy reportage ci bis bu am solo bi nga xamante ni moom lañuy ñuy fàttaliku giseeb ko tedd kat yi Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul ak maam Thierno Birahim borom Daarul Moxti ginnaaw tukkeem bu am solo boo bule moo tax nag ci ndigalal xalif général kulu murid Cheikh Mahamadul Muntaxa Mbàkke ci kilifteefug sëñ Basiiru Mbàkke Anta Ñang waaye nag ci teewaayu alaaji maam Ceerno Mbàkke moom sëriñ Seex Awa Balla Mbàkke ñoo ngi fii ci kër jëmm ju tedd jëmm ji sell koo xamante ne ay at yu bëree ngi nii ñuy séq ak moom màggal gi muy euh, sëriñ Moustapha Mbàkke moom alaaji maam Ceerno Mbàkke moom sëriñ Seex Awa Balla ci bis bi nga xamante ni dañ ciy fàttaliku gise bu am solo boobu moo tax nag bi ñu ñëwee ci Serigne Moustapha fekk fi nga xam mooy njoolum sëñ Cheikh Awa Balla Serigne bi jox ko kàddoom ngir bis bi ak itam taxawaay bi nga xamante ni bii Cheikh Amadou Moustapha Mbacké am na ko ci bisu tey bile ak taxawaay bi nga xam ni mbooleem taalibe yi am nañ ko waaye itam sëñ bi jox ko ndigal yëkkati kàddu yi cant ak kàddu yu ngërëm jëmale ci mbooleem taalibe yi nga xamante ni ñëw nañ ci bés bi wala seen loxo tabi ci wala itam ñu bëggoon a ñëw ci yàlla dogal am amuñu euh, jotum ñëw waaye itam yéene itam agsi ci liggéey bisimilah sëñ bi salaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha di sant Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di ñaan rek si mun taxaa yàgg fi loolu tëwér waaye noonu ko ñaanale sëñ Bissou Anta waaye noonu ko ñaanale suñu jàmbaar ji xale haji maam coorom sëñ Cheikh Balla yàlla waaye nag loolu ko ñaan suñu jàmbar ji nga xay mooñ suñu ginnaaw joxantu kaddu ñu sañ wax mm-hmm. ñi ngi siyaar ñëpp di jéglu ñëpp di baal ñëpp xa dinam la aq di ñaan ci barke bis bi lépp loo xam ne ñu ngi ko ci wut yàlla nañ ko am waaye bis bi bis la boo xam ne lépp lu ci waaye def sa bopp ko defal muy magal daarul mawti keroog ba yàlla dogalee maanaam Serigne Touba jóge ci tukki bi wàcc ndar woolu Seex Ibra Faati ñu yendu ba ngoon mu ne ko Ceerno mu ne ko Mbàkke mu ne ko ndax su ma demoon su ma su fekkonte ne maanaam yaa dem ma toog danaa man lii loolee ngërëm féetoo ko kaw muy bis bi nga xam moom la njëkk a gisee moom bi mu jógee tukki bi bis boobu nag la ñuy màggal muy nuyu sobaan fukki fan ak juróom nuyu sobaan sëñ tamit waxoon na ci lu am solo ci bis bii ndax nee woon ne sëñ Bassirou mu ne ko Mbàkke mu ne ko bu fekkente ne da nga ma bëgg di gis de na ngeen féete poroxaan benn bis rek laa ko bis boobu di xam ne maanaam yàlla dogal na muy bis boo xam ne képp koo xam ne dem nga Darou Mouhty de fa nga may kon kon noo ngi siyaare bu baax mboolem koo xam ne rek yaa ngi dégg suñu kàddu baax a baax di siyaare su sang maanaam jëmm la joo xam ne nag fii ngeen ñëw mat na ko sëkk ndax moom jëmm la joo xam ne nii muy Cheikh Moustapha Mbacké mi nga xam ne moom na jàkkaar lool muy doomi alaaji maam Coorom sëñ Cheikh Balla sëñ bi ko fii mu fii màggal te man ko sëkk taalib yi nga xam ne man dañ koy fekk képp koo xam ne fekk ko fi jëflante ak yow du tax nga fekk ko fi kon ni ko ñaan Mbàkke mu yàgg fi te wér lépp loo xam ne tamit mi ngi koy liggéeyal waajur wu tedd wi alhaaji maam Coorom sëñ Cheikh Balla yal na ko yàlla kattanal dëbb ko kàttan ba nga xam ne ni nga ko bëgg noonu la ko amee waaye jëmm la yoo xam ne di képp koo xam ne ñëw nga fii jikko moo tax waaye na képp koo xam ne ñëw nga fii yërmande moo tax waaye képp koo xam ne ñëw fii yàlla jëmmi borom dor waaye yàlla jëmm moo tax kon kër gaa ngi nii koo xam ne ñëw nga fi yaakaar naa ne ko wax ndax kër gaa ngi fees del defe naa ne dër ba mu daj képp koo xam ne ñëw nga fii da nga xam ne maanaam kër yi ñi nga màggal waaye tamit fii ak màggal la kon noo ngi koy siyaare Mbàkke mu yàgg fi téwér lool lépp loo xam ne liggéeyal bëgg na ko liggéeyal Sëriñ Tuubaa borom Daaru Muti yàlla na ko yàlla kat attanal lépp loo xam ne mi ngi koy jeex ci kër Serigne Touba yàlla na ko daj te boo ko yàlla na ko yàlla na ko jariñoo te boo ko jariñoo yàlla na ko yàlla na ko jig kon ñu ngi siyaare ñëpp di siyaare mboolem koo xam ne rek yéen a ci ànd ak télévision bi maanaam ka ca njëkk ba ci suuf rek ñoo ngi koy ñaan yàlla defal ko tey jàmm ndax lii liggéey la boo xam ne liggéey gën ko kawe defe naa ne magal ko borom dooru mutti nga koy wane lépp loo xam ne yaa ngi koy wane de mënoo wane lu gën magalu Cheikh Fati kon donc ñu ngi sant bu baax li leen ñaanal yàlla gën leen taxaw seen télé bi li ngeen ci bëgg yàlla def leen ko taw ba nga xam ne maanaam noonu koy noonu ngeen noonu ngeen ko bëggee kon ni ngi siyaar ñëpp di jégalu ñëpp di baal ñëpp ak dina balaa ko asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi fi teew ñëpp kenn ku nekk ak sant nuyu ñuy seetaan tamit nee nuyu tur sëñ Maam Thierno mi nga mooy suñu wasila ñu toogal ko fii ci Rabat ci quartier bi ci Darou Moussi di sant yàlla bu baax a baax tamit ci fekke ji ñu fekkee daaw fekke war ren ànd ko wér di sant yàlla bu baax ci loolu moom ñu ko may di sant sëñ Tuubaa mi nga xam ne suñ lépp ñu yaakaar suñ yaakaar àdduna ak àllaaxira sant sëñ maam Thierno mi nga xam bunt suñ wasila teg ñu fii ñu toogal ko fi li ngeen wax lépp dégg nañ ko lu baax lépp waaye lépp nag ñu koy delluwaat ci moom a ñu amul lu dul moom mooy suñ lépp buñ nee tudd dañuy wax wala ñuy def dara moom moo tax. ndax nit day am loo xam ne <clears throat> ci nit koo xam ne bu ñu doon tudd tey ca egguñ ci kooku kenn du la xam kuñ réere ngay doon faaw bu nee Moustapha Mbacké rek kenn du la xam dañ naa Moustapha maam Thierno ñu doon laa xam bu ñu eggul ci maam Thierno ñu kenn du la xam kon kooka loo am moom nga ko war gërëme ñu koy gërëm di ko sant di ko mu yàgg suñ kanam yàlla may ko wér ak kattan ndax nit bu la fexee ba nga am loo xam ne mën nga jaxasoo ak nit ñi teg la jox la yar yar bu baax lim njëkk a def mooy wutal bu baax jàngal la yar la ba nga xam ne jaxasoo nit ñi loolu ñu ngi ko ci sant loolu defal lañu loolu lépp dimbali ñu itam ba lu bëree bari la nga xam ne yenn saa yi ñi nga xam ne ñoo ñoo leen bokk askan sax ñu leen dégg ci loolu te duñ ci dégg loolu lépp nag mooma du suñu njàmbaar du suñu dara lépp moon ci yar ñu ngi ko koy sant di ko gërëmee a loolu nag moo waral tamit fii ni ñu ngeen fekk ñu toog fi ab quartier la moo ko moom moom lañ fi nekkal jëwrinam rek lañ fi nekkal di ko fi liggéeyal di déglu ndigalam ak feneen fu dégg xam nga ma dégg ci réew mi rek fa nekk rek moom lañ fa nekkal di wéy ci ndigalam di déglu ndigalam di doon ay taalibe ci duñ daj duñ dellu ginnaaw duñ waxat benn yoon incha allah fas yéene di ndigalam fu jógee rek ñi suñ kem kattan ba ba ba fañ ci mën a yem di dé di toog loolu moo ñu bàyyi fii mu man ak sama mag sëñ Sidi ak suñu rakk yëpp kenn ku nekk fa ko dégg loolu moo leen fa bàyyi déglu ndigalam yàlla dimbali na ko ci loolu tawarkàlla yàlla bu cat dugg yàlla na yàlla lafal leen cat ñoom ñëpp bañ am ngërëmu sëñ bi ndax loolu rek la ñu sàkku moo ñu bàyyi fii yéen tamit ñu ngi leen sant ci ñëw gi ngeen fi ñëw ndax mënu ngeen fii fekk na sori na te it li nga wax bëri na ñoo xam na ci dëkk bi ñoo ñu fa ëpp fop ndax ñun te cër yi gën a fekk lañ yor ndax sëtaat moom boo ko doon ne cër yi gën a fekk nga yor waaye na ngeen xam ne ci lañ bokk ngeen boolañ ngeen sant ci loolu di ñaan yéen tamit seen rajo bi seen télévision yeeg seen eh, yi ngeen jumtukaay yi ngeen fi yàlla na ko yàlla yokk ba fu eh, jumtukaayu xibaar dégg yàlla eggale ko yàlla mën na ko ndax yàlla jeexalul dara te loolu ñun ñii di murit mën nañ ko gëm sëñ Tuubaa ndax sëñ Tuubaa bu nga xam ne mooy suñu yaakaar ñun ñëpp fekkante wala ak yonent bi ci jamono sallallahu alayhi wa sallam bokkul moom am réew bokkul ak moom ab continent sax mosu mosu ko gis zaahir waaye bi mu dikkee daa xam ne yonent bi li mu am lépp ci yàlla ko jëlee mu ne dan mu ne dan yàlla rek ba yàlla tegtal ko yonent bi waaw bi ko yàlla tegtalee yonent bi nag sallallahu alayhi wa sallam yonent bi a ko ci yàlla yàlla jox ko lépp moo ko wal boppam yàlla ala muhammadin wa muhammad samadi kooku nag mooy suñ ku nekk sa kilifa nekk sa yaakaar waroo découragé waroo dellu ginnaaw toujours da ngaa yaakaar loo amul ci loo amul rek da ngaa yaakaar nga koo mën a am ci lu baax waaw nit noonu lay def sëñ Sao Balla mi nga xam ne mooy suñu bunt bi sëñ bi nett li leen boppam ne moom sëñ Sao Balla sëñ Tuubaa ma seen wax lu mel noonu ba moom daanaka li am lépp ci la ko jëlee sëñ Tuubaa da leen bi mu dikkee daa xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu daa fas yéene fu mu teggee tànkaru mu teg fa xam ne yonent bi kenn du ko dab waaye bu ko boo defee noonu boo ko deful boo ko deful tam raw ñu bëri sëñ Saaliw nee na ba loolu duggee ci noppam keroog rek da daal tegatul kenn ci kanam ku dul sëñ Tuubaa ak borom daarum si looloo ko may daaru maanaam may ko Tuubaa Roof may ko daaru Bidam may ko may ko daaru Waab may koy barab yëpp ñu toog ndax li sëñ Saaliw li sëñ maam Cerno yokk lépp moom la kon nag loolu pas-pas boobu dañ ko sëñ maam Cerno nekk moo tax bi sëñ Saaliw Balla jógee léegi 76 le 25 avril 76 ak léegi kenn ku nekk gis na tàmbalee ko ci Darou Manane li fa def lu sëñ bàyyi woon rek benn def na ko fukk wala mu def ko téeméer ba yokk ci yeneen ndax sëñ bi fi jógee ci misaal rek danaa gàmmu Darou Manane asafura danaa gàmmu Mbaba ak Tiwaawoon ak Bambey waaye sëñ bi daanaka yokku na ci léegi comme ni nga lu fukki barab yoo xam ne fenn fa dafay gàmm ca fenn boo a xumb ba ca Darou Moukhty gën a a sori ne fii moom fi la taal bi sëñ yëpp nekk loolu la comme jàmbaar ju ma nekk sa kanam nag mooy suñu maam Thierno bi suñu wasila ñu ngi koy mu gudd fan te te yàgg fi lool suñu kanam ba yàlla may ñu ngërëm xam ne na ngërëm rek mooy njëriñ te a baax gi ngeen fi ñëw bégg nañ ci lool yàlla na ngeen ko def ay at at barkeb Sëñ Tuubaa ca saa su ngeen fi dikk ànd ko yokk barkeb Sëñ Tuubaa yàlla mën na ko jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الإله القادر المريد moom lu ko soob lay def ci ab murid wallazi yafhalu ma yurid doon allazi yuradahul murid wa huwa hayyun samadun wa baay subhanahu sukannafin wa waahi nan sant tey feddale sun tawxiid baxda salaatina alal waxiid ta sello ya nen yi ñëwoon ci dunya fa hakkadun lan won ku nekk weyn ta seetlu xayrul xalqi ak saabaan ki tax ba yàlla bind mboolem jaam teewul mu dem ñu naa wa ma muhammad illa rasulun xat li lu mu doon duniya su doon karuk waa makka dun ko jaali waaye la yóbbu ahmadul makki yoo dellu ahmadul mbakki du bàyyi sun maam ceerno ibrahima kale ki lay maqdoom yooyu la yaari xew wile ko yetteel fa daarul muxti xew wile dimbete jërë ngeen jëf mbokk yi su ngeen déggee xasaayid yu am solo yi nga xamante ni suñ jëriñ ji yëkkati na ko jëmale ko ci borom daarul muxti ngeen xam ni ñoo ngi fii ci bis bi nga xam ni moom la ñuy fàttali ko giseeb Serigne Touba Xaadim Rasul ba ak euh, taalibeem ba léppam ci moom di maam Thierno Birahim borom daarul muxti tey jii nag ñu koy fàttaliku ñu nekk fii ci kër Serigne Ateex mbake moom Serigne Cheikh Awa Balla Mbacke yaa xafaar Serigne Ateex yaakaar naa ni ñëpp xam taxawaayam pas-pasam ak bëggam lu baax ak ak dogoom ak ak taalibeem topp ci ginnaaw El Hadji Maam Thierno ci liggéey bu am solo bi nga xam ni moom la ñuy defal yaa xafaar di Serigne Cheikh Awa Balla moo tax nag ñu toog kii nga xamante ni doomam la di jëwriñam di euh, Cheikh Mouhamadinil Mahfouz moom Serigne Ateex ñu àndanteeg moom. ci suba ba léegi euh, yaakaar naa ni taxawaay bi nga xam am na ko ci euh, kanam way juram am ko itam ci peggu euh, taalibe yi di taxawaay bu am solo waaye itam ñu feggoo ki nga xamante ni moo di Alaaji Cheikh Ndiaye moom itam di kenn ci sëriñ bi moom lañ fas yéene yëkkati kàddu jox ko bés bi sabab bi taxawaay bi waaye itam sëriñ taxawaay bi waaye itam jëmm ji nga xamante ni moo di Cheikh Amadou Mahfous taxawaay bi nga xam am na ko ci kanamu taalibe yi am ko ci njaboot gi bisimilah. aouzu billahi mina shaytaani rajim <clears throat> bismillahi mbokki daarul moxti ñoo ngi nuyu ñëpp di teg nuyoo bi ak ziar bi ci loxo sëñ Mahfous Mbacké ñoo ngi koy ziar bu baax Mbacké di ñaan nga yàgg fi te wér lool euh, di leen présenté rek euh, ñi ñu àndal comme délégation mhm. jóge diggante Mbacké ak Touba mhm. euh, di délégation boo xam ne dañ fay ñëw ci turu parti PUR sëñ Mahfous invité woon ñu wax ñu màggal gi mhm. ñu teew ñoo ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp parti bi nag ci côté parti pur bi euh, bu ñu tuddee parti pur rek xel yëpp dem ci Serigne Moustapha Sy mm-hmm. bu sëñ Cheikh Tidiane si Al mm-hmm. kooku nag buñ ko tuddee itam en tant que murit fii ñëw ci Daarul Mooti di kër maam Thierno Ibra Faati di rakki Cheikh Ahmadou Bamba radiallahu anhu da ngay daal di sa xel day daal di dem ci diggante Mbàkke ak si mm-hmm. la ñu bokk te muy mbokk gu rafet ci réew mbokk gu rafet ci diine waaye di mbokk gu rafet ci deret yàlla boole leen ci géppuk boole ñu di ko dund ñoom mag ña ba xale yi yore ko te fas yu ñu yéene mu rëcc sëñ Moussa am ci taxawaay bu mag a mag a mag digganteem ak waa Touba di ko rafetal lool. Mhm. sëñ Modou yore loolu. nga xam ne ci wàllu Mbàkke lu teew lu xewti waa woon moom la sëñ bi di yebal. waaw sëñ Modou Abdou Wadoud. Mhm. mu ngi dëkk foofu ci 28 bi. Mhm. kon loolu lu rafet la ndax sëñ maam Maaram Mbàkke moo leen meññ ñoom ñëpp. séyéen yi ak Mbàkke ñëpp moo leen meññ mooy maam mi leen boole kon ñoom li ñu bokk mënuñu ko séddoo mhm. kon suñu sëñ Mahfous yëgalee màggal gi ñu ñëw dal ak moom mbégte lañ ciy am te ku ko waxoon kilifa yi itam buñ ko yëgeen nii lañ ciy bége euh, réew mi nag toll na foo xam ne Mbàkke laaj na ñun ñëpp nga xam ne ñoo féete ci këru diine yi ñu taxawaat jàpp ba delloo mbàttu ca ndaa la ndax tey Sénégal bu amee jàmm dal vraiment mag ñi fi nekkoon di mag ñu baax ñoo ko liggéey mm-hmm. Mbàkke ñoo ngi lay siyaar bu baax a baax a baax di ñaan ndono li ngeen doon ci maam Thierno Ibrahima Faty yàgg ci seen loxo te ngeen muurloo ko yàlla saxal fi xalifa bi euh, ñoo ngi koy siyaare Mbàkke ku baax la ku bari xam-xam ku bëgg nit ku yaatu ku tabe muy Serigne Bassirou Anta na Mbàkke di siyaare waa këram tàmbalee ko sëñ Moustapha ba ca këca gën di ndaw suñ sang yu baax lañ ñoo ngi nuyu waa Daaru Musti gépp di leen biral canti sëñ bi di leen biral canti parti bi ak di reconnaître ni ngeen ci taxawee rafet na trop yal na yàgg yàlla yàggal taxawaay bi réew mi nag loolu la laaj diine ji li mu laaj mooy mag ñi dox nañ ko ñun taxawu ko ak dundal ko rek moo ñu ci war waaye lépp li jara na def mag ñi def nañ ko kon nag yàlla bu dara yàqu yàlla bu dara réew asalaamaaleykum wa rahmatullah mina seytaan rajim bisimilahi rahmaani rahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax di leen siyaare di leen bu baax xëy na bi sëñ alaaj mi di yëkkati kàddoom nag la sëñ Ahmed Mbacke dugg si moom sëñ Cheikh coro moom sëñ Baara moom Xaadim Rasul bi ngay yëkkati kàddu loo fi day door ak sa léegi nii mu ngi koy nuyu bu baax di ko dal ak jàmm bi sunu lépp nag ginnaaw loolu it ñu ngi sant yàlla bu baax di sant Serigne Touba di sant Cheikh du Bachir mi nga xam ni moo toog toogaayu borom daaru di sant sëñ Maam Thioro mi fi toog toogaay suñu Cheikh Obal di sant suñu waajur wu tedd wit di sëñ Ateex Mbacke xëy na bis bi moom li ko sabablu ñëpp xam nañ ko muy tukki bi nga xam ni borom sëriñ ku baax ki dafa defoon na ko ba ñibbisi keroog dafa wooloo Cheikh Issa Diène ne ko woo wool ma Cerno bi Cerno wuysee mbégte man ci amoon ñoom ñaar ba kenn ku nekk sëñ bi jàpp sa moroom di ko xool xool xoolin woo xam ni kenn ku nekk yëngani sa moroom moom euh, xol bu sedd guyu loolee waral tey bisub màggul daaru moxti gi ñoo ngi ñaan nag mbégte mi ci maam Cerno amoon ak sëñ Tuubaa suñu borom defal nu ci xew lu yaatu ci barke si Xadim sant sama mbokk yu baax yi sëñ alaaji mii nga xam ne eh, tey eh, njabootu eh, maam sunu sunu sunu maam Babacar Sy sunu waajur Cheikh Ahmed Tidiane mm-hmm. sunu magit sëñ Moustapha Sy mm-hmm. di nit ku baax di nit ku bëgg lu baax mm-hmm. di nit koo xam ni lafi fi maam yi bàyyoon dong lay xentu mm-hmm. moom day dundal muy sëñ Moustapha Sy mm-hmm. ndaxte ku déglu ay kàddoom wala ay discours am it da xam ne ndaw ñi ci boppam mooy yitteem kon nag euh, ñu ngi leen di daalal bu baax di leen ñaanal bu baax lii nga xam ne nii su euh, sumb na ko ci réew mi it tax tey jii ngeen nekkal ka fi euh, ngeen teewal ko fi tey ci Daaru Muxti it sun xol seet na bu baax a baax a baax baax ñun nag moom li ni war ay doomi daara lan te parti buñ gis xam ne daara moo ko lalit ñun mun ñoo xool benn parti lu parti boobu ndaxte kuy wàll yaan da ngaa tëggul kon nag ñu ngi ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa ak borom daara moxti lépp loo xam ni daal sum euh, ñu ngi koy sàkku ci réew mi yàlla nañu ko suñu borom defal di ñaan réew mi amuk dal te xam ne lii euh, lu ñuy séntu rek la day passé kenn ku nekk xam ne lii sa wareef mooy bu bis baa hmm. nga jël sa carte dem xool kala neex nga wooteel ko dem delluwaat ci kër delluwaat ca kër ga wootiwun xeex wootiwun xuloo jàmm rek lañu woote kon réew mi daal yàlla na fi yàlla def jàmm ci barke Sëriñ Tuubaa jërë ngeen jëf sant nañ bu baax a baax a baax na yaraw ci mbooleem lu yaay Alaaji Fallu saa soo leen bëgg a xibaar yu wóor te gaaw boole koog wér gaaw gaaw abonné seen chaîne bii di Ndindy Actu waaw da ngay bës cloche bi def abonné lépp mat bu ngeen bëgg également ay publi reportage ñu couvrir leen également seen ay événement lu si mën a doon événement religieux politique société maanaam daal xew-xew jàpp leen Ndindy Actu mooy chaîne bi gën a gaaw waaye tamit gën a disponible ngir seeni i xew-xew woote leen gaaw si service commercial bi di 77 693 90 46 wala 77 698 96 53. Cheikh